vingt une heure huit minutes lañ ko commencé bëre ñu ngi ci premier round Papa Boy Djiné Jacob même na mel ni dem Papa dafa mel ni ku koy nax da Papa daa mel ni kuy naxee Papa dafa mel ni ku koy naxe dafa mel ni ku kay bëgg a nax da nax de. Papa dafa mel ni ku sonn ah est-ce que du stratégie. est-ce que du stratégie di ko wane ni damaa sonn booy bi door ñaar door na papa remise lay def papa door bi jaarul yoon Jacob a ngi xeex papa a ngi Jacob papa door na droite papa eh plaqué na ko plaqué na ko plaqué na ko neen dara amul. arbitre nee dara amul dafa sifflé xeex nañu ba génn géew bi arbitre nee dara amul arbitre sifflé na waat un beau combat combat bu neex la ñu bëree ñoom ñaar ku nekk daan nga sa ci ginnaaw saaku yi ah ku nekk daan nga sa morom si nee na nga jël ku nekk daan nga sa morom si ginnaaw saaku yi Papa Boy Djiné Jacob Baldé 1-1 ci ginnaaw saaku yi mais attention ragal naa ragal naa euh, la fraîcheur physique de Jacob Baldé waaye xool papa dafa mel ni dafa sonn xoola biir bi xoola biiru papa booy jinne bi il respire difficilement Jacob dóor mu dal papa riposté mais su ma gisul bu baax dafa mel ni ki dalul papa ak Jacob Jacob a ngi xeex waxoon naa leen Jacob bëgg ko may dara papa sànni na benn gauche daf ko yóotu papa dagg na léewtoo Papa buñ la dominer nag ci xeex da ngay réagir Papa ak Jacob Papa ak Jacob Jacob mi ngi dox ci kawam Sakop Sakop Sakop Sakop dóor na Papa def ko bëggoon riposte Papa dóor na benn riposte droite bu garaaw bu ko daloon bay kawote Papa ak Jacob ñu ngi xeex ay waay ña ngay xeex ñu ngi leew too ñoom ñaar Papa ak Jacob Papa Jacob dóor na eh dal na laay eh, Jacob mi ngi xeex de yaay xeex raag raagooy raag ña ngay xeex wuy sama nday dóor mu waaj wuy sama nday mu waaj wuy sama nday est que dóor mu waaj eh Jacob dóor na ko mu dal Jacob dóor na ko mu dal Jacob ko mu dal kawo kawo attention o kawo attention kawo Jacob bëgg na ko jeexal eh ña xeex ci biti Eh, eh, eh, papa papa papa gisatul de papa gisatul dafa sonn il s'est blessé papa dafa sonn de attention avertissement pour Papa Boy Djiné arbitre bi na waat raak xeex Jacob Baldé est-ce que fi mu doon tegoon loxoom dafay tegaat loxoom Papa taxaw na Papa taxaw na Papa lii nag Papa lii pour la la Papa je suis pas d'accord je ma nag loo bëgg ubbi tànk yi je suis d' accord encore bii d' accord ma Papa lu muy bëre d' accord ma ci day mel ni kuy foo jàppante rek jàppante rek eh uppercut uppercut uppercut attention attention Jacob mi ngi xeex Jacob mi ngi xeex dooraat na ko attention Papa est ce que mi ngi fi est ce que mi ngi fi. Papa est-ce que mi ngi fi wala boog moo ko tey di ko wane ne dama sonn jàppante nañu ay baaraam arbitre àtte na mitaa nañu wala gis ngeen noonu Jacob moom la ñuy faj dagg loxo bi dafa mel ni ki dafa dagg dafa mel ni ki loxo bi dafa dagg moom lañuy faj noonu gis noonu dafa dagg dafa dagg moom sax dafay ragal dafay ragal dafay ragal ñu ko doo mën a bëre loolu lay ragal fi mu nekk nii mi ngi nii ci ardo mi ngi nii ci ardo teg nañ ci li nga xam ni moom mooy coton. oh dafa dagg. ah ok ok dafa gaañu loxo bi ñu ngi teg nañ ci. benn compresse dafay naaj ci lu bëri dafay naaj ci lu bëri waaw ñàkkul loolu léegi nag euh, ñuy xool noonu teg nañ ci compresse teg nañ ci compresse dafa mel dañ koy band lii buñ ko lii buñ ko bàndee dootul mën a continuer non non non lii moom lii moom dootul mën a continuer moom lii di continuer di sañe nii ko bàndee damay ragal dootul mën a continuer moom sax mbër bi booy xool il est un peu stressé mbër bi il est stressé actuellement nee na damay bëre mi ngi ne arbitre bi damay bëre de gis nañu. voilà yéen a ngi dégg ambiance bi noonu ñu ngi koy band waaw ñu ngi band loxo bi. lii ma gis ñuy band moom lii du ci mën a bëre moom lii may gis ñu band nii ah ragal naa ragal naa ñu jël si benn décision waaw lii nii parce que mi ngi continuer di sañee deret baa ngi continuer di génn deret baa ngi continuer ba tey voilà Jacob dem na faju ji ci loxo bi loxo bi di génn deret ju bëri dafa bëgg a jeexal combat bi eh, papa dagg papa dindi na bande papa dindi na compresse bi sànni na ko papa ak Jacob Balde ñu ngi lewtoo Jacob daf ko bëgg a jeexal Jacob loxo bi day nàcc nàcc nàcc gu metti sax attention papa ak eh xoolal li ngay kat papa ak Boy Djiné papa Boy Djiné ak Jacob Balde arbitre baa ngi wax ak ñoom papa dafa mel ni kii mi ngi koy am nu mu koy gérer nag e Jacob loxo baa ngi naaj loxo baa ngi naaj papa si loxo bi la bëgg a dóor papa gis nga mayu ko dara papa il fait des déplacements ko bu jege arbitre arrêté ko combat bi doo xool arbitre arrêté na combat bi non dafay naaj di waa CNG mi ngi am na lu muy kaas xool leen xool leen tamit Pape Diagne Seras ma nga fa ña ngay wax moom ñi ngi wax ak moom ko dalal Jules Baldé mi ngi wax yaram bee tàng li muy sañe moo tax Jules Baldé ngi noonu di papam boo gis ngeen ñu ngi koy faj ba tey mais nag Pape Maguette làmb fu mu toll moom moo arrêté naaj ci naaj. tey làmb bu dee li ñuy wax. waaw loolu loolu moom dëgg la làmb toll. 100 millions mais mais compresse ak mercure korob rek. ak ak bi ak dëkkee dëkkee rek. kese kese kese ak lamset. mel ni ki fa njulli ak ciseau. <laughs> ak compresse ah! Ardo war na dépasser lii ay eh waay renforcer leen Ardo côté matériel. yaakaar voilà léegi yaakaar baat loxo bi. voilà léegi band nañ loxo bi. léegi band nañ loxo bi. waaw ah, maa ngi wax bu mu sañewaat lu bari parce que lii moom il faut ñu jéem ko maîtriser waa il faut ñu maîtriser sang bi mu mën a continuer combat am gaa yaa ngi wax moom waa safam papaam ñëw na wax ak moom papaam di Ama Baldé mi ngi wax ak moom ndeysaan mi ngi noonu dellu na waat sifflé na waat Papa Boy Djiné ak Jacob Boy Baldé dem na ardo ba ñu band loxo bi e Papa door na ci loxo bi da kay énervé da kay énervé e riposte riposte droite Papa remise na remise ak droite attention door mu wàcc attention door mu wàcc attention xeex Papa Jacob jàppante na ñoom ñaar mbot wala ëñ mbot wala ëñ Jacob jàpp na loxo gauche bi Papa loxo droite bi mi ngi roof eh, ilaha illallah gis naa bëri tey gis naa bëri tey ay waay ay waay war na la ndomba nag war na la ndomba jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na rokos rokos rokos rokos rokos rokos arbitre arbitre eh gars dugg na supporter ba dugg na ci biir oh ndeysaan ndeysaan ay waay waay waay kenn mos a gis ni danañ ko rey danañ ko rey danañ ko rey ay waay waruñu ko a dóor Ama Baldé